xalaat ati di ñëw ak a dem te xam ne am na ca at ma moos ca ngay faatu wér yi de fukki weer ak yaar weer wu ne di dee ka teru dang ca ne taafeere weer fekk ne ca ngay faatu weer wi def ayu bés wow faawu bés dana ñëw boo xam ne bii mooy sa sarax mbaa boog ca ngay faatu bés bu ne ñaar fukki waxtoog yeen turom la wéy te am ca wow faw sagru root ca ñay faatu bés bu ne walla weer mbaa waxtu walla semaine kem loola jug na ci sa dund ba ba ngay faatu ku denc téeméer te bés boo romb teggi dërëm jeex ga dalay bett farlul tey xibaadaatu sa yaram wi ngay yafal xont ak diraaya ka diw suuf rekk a koy mujje ak sax gannaaw faatu man tee ma jóg dénkaane waat te soññewaat te fatliwaat ngir noo ngi dem te dund paat amaana dig ba jege na mel nan ni baaya ñu woon te ñii nu wuutu nan ni nun nan dal bàyyi xel la woon amaana dig ba jege na nan dal farlu nag ta waaj yóbbal bu yiw te bun ko waaj ngir ku xamul kañ la du waaj amaana dig ba jege na bakkan dafay xay ne xure dak la fekk nga mébét moo xam mu jag mbaate jagul bu dig ba yëg see sotti na te ñépp ngir ngi riir wuti alal ñi ëpp lan tey capital ñii këri mar boo fu laal wut gi araam gi ëpp na koo gis tabax na addunaam ci tappaleeg war yu xaraam defar kërug alaaxiraam defu fa dara perte na kollu bu duy ribaane mu kay dootu mooy yàlla ba tiit ngir ab xol bu dee xalaat yàlla boroomam képp na xol bu amul tomb ci leer seytaane ne na ca biir di fuur fu ko yebal mu daldi di bu rajim ba bàjjo jekku na wutin wu ñaaw amin wu ñaaw dellu ca jëf nag jëf ju ñaaw ba dee na jaas ñu xëy la yow sànni ci bàmmeel raglu na nga jëm ci biir bàmmeel bu yees buñ sotti suuf ba fépp fees nga tëddee wette te ne di soppiw tëddin sax metti na bu ñu robee ba bokku ñaan nga des fan ak nara fanaan dal ne koral ak sambalaan nit ak mu jëm toroxlu na bàmmeel bu yaatu lool te xóot boo leeg lëndëm tëris te weet lamboo ca biir yeneen ni tiis te tër ba xat na yàgg na wax nañ ne kuñ suuli ba ñëw lay jëkk nëb fépp ci yow mooy bët ya ak pëy ca yow booba la xet ga yéeme na fàtte ka bon fàtte dee rek ka waral ku ne bew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu reew bew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu am lu ko saf kenn dootu am ko soofit dee waral ku ne sew koo xam ne xam nga ne tey dee gaa nge dàq di ñëw ne ne mo la war tey jéema daw yëfe ndaw lëf mat la bëgg tey lu dul ak jub gi fi juru yiw lëf mat la daw tey lu dul ak bon gi fi juru ay loo wér-wér wopp bés loo tedd tedd torox loo fi man man télé loo wax waxit ne selaw loo sant sant ne mbas loo fi maare maare ne cam loo fi jaglu jaglu tawat àdduna yewu ci yow bul bëgg lu fi nekkul bëgg loola du mbir àddina kër la gu jaar jëm ca kër ga ca kaw yonent bi Moustapha moo tax ñu feeñal lépp lépp lu ne bu kenn doon sax ci duniyaa ba tey mi ngi war njegam ka daan ànd ak saaba ya xëy ne meng ne mes moo xëy ne mes lu nu fiy def waaru jot na bu wér suñu maam aadama junniy ati wàññiku lëf la am te ba dee yëg këram ne tasar njegam borom taar bu rëy ba moo jekki-jekki nemes ca yuusufa tax jigéen ñay xëy di ŋàbbi gubar njegam suñu maam ibrahima waajoon na bay rendi ismaahila doom jamu am jibrilu far jot ko mooy su naas tabaski ci xar gannaaw bu saarata naagum njur la door feral isaaka mbokkum danaa lim seeni at ci lu wér njagam suleymaan ki moomoon dénd bépp nemes daa war ngelaw daa liggéey loo jinne kenn du ca bar moomoon na àddina daf daa dëkke taaxi wurus malaakaay ajjeene dañ daan seet si kër ga di war ana ki daan fekk waajuñu rob ba yax ya funux mu ñëw fa dekkal ko moo dee xaw kuñ xela ar di soppi yéefari ay mbaam àll buñ ko moyaa eesa ibnu maryaama laa wax bàjjo baare yi bir yàggul fi fanweere at ak yett rekk la am ak dellu sim fii ci duniyaa wax ju siiw la ju wér loo xejje xejje barab dee ñëw fa bés di la wër te loo ko berndeel lu dul sag du génn sa kër bu dig ba jeexee ba ruugay wuy ji yàlla keroog moo gën a metti juróom ñaar fukki rab boyu sar bas buñ la dee jangte jangte yóbbu suuli ba ñëw ba jooya dal ñuy xëccoo alal ji ak li nga jur xarit ya fàtte la say doom dal di donnu alal jigéen ña tëñj la sàkket yépp xëy ne wesar yeneen ti weer ca kanam ak lëf sa bokk ya ñëw këroo jabar te doo too denc faawu jabar sa doom yu ndaw ya jirim ñu mag ña fab sa barab jigéen ñu ndaw ñay waaju ñay seetu ñay wuti far nga sax ca loole ba bés buñ ba taxaw bay fëkk bindeef ya ruu yay mel ni bi fet ñii di jugandoo ñii di fot fotloo ba mel ni ki xar ku nekk kem la nga daan jëf boo jógee ba taxaw mooy jiitu far di la wa mat mbaa dem di la xaar gisaa nga koo xam ne doo dem bis penc sax di layoo soo dee ko baax mbaa ko bon nga tegge jaari sa kër keroog nga gis aje nàmpal rët ba sànni xelel jigéen ñi biir rët ba doomam ñëw te fekk du ñor gor soo ndax yaa ma yilif muy daw te naa la du man kenn dootu tal la mooy jëkkër du faale jabar gor ndax yaa ma yilif muy daw te naa la du man man mësuma am jaam sax ndaxte tey du ma gor bur yàlla dal di rësal jantam ba bam jege leen mu summi mbubb ya géej ak dex ya tàng ba fer keroog nga gis ko marmar woo xam ne du attana wax gis waaju lab ci u ñaqam gis waaju jaanama karam gis ku ñu laxab bàjjo ba yël gët ya kanam nga xëlëm muy daw lu mat fukki junni bi at géew bu nekk mu wër ku ñu peese saw jëf ba saw ay wat nga daldi torox ku ñu peese saw jëf ba saw yiw wat nga daldi sawar bu yiw wa yemee ak ay wa lenn watul ñu won la jaanama soo génnee ñu won la sa kër yal nañ fa ànd ak sëriñ Tuuba te buñ fa taxaw mu jiitu nu yóbbu nu tuubaa kër ga ñëpp sawar te boole noog suñu mbooloo mépp kenn bañ a des tabal nu firdawsi uurul ay ni jóg doon xaar dul ko nag bind ngir yi raaf na budul kon ak ñi tare xam-xam daay na bu dul ko nag ñi yeete gaa yi yàndoor te dootuñu yeew abadan ba xëy buur déglul ma wax li waral màggal yi ak bés yu yeyoo màggal ngir ga arab amuñu ci genn ak màggal lu dul rey ak osoy nu ñoo ñaa noon yaa nga yor bopp ba gannaaw bu deena làmmeñ wanaa sa yëx la mu la siina déglul ma wax la mawlidu rasulullahi seex ban ba ne màggal guddi gàmmo jar naa xoole seex ban ba nee na dundal guddig rasulu day taxa dund taxa wér am mbooloo walaw bi xadrin dirhamin la ban ba waxoon ci jës bu ma bëgg say xiban ba seex ban ba ne ku jox dërëm kuy gàmmo mel na ni teewe nga unay ni teewe xaybar dimbali nga Moustapha ca noon ya koy lor ihya u mawlidil Bachir la ban ba waxoon ca jës bu ma bëgg say xiban ba ji mu mu aram bisum màggal la mooy ñetti fan ca weeru tam xarit wa yëgal ne kat suñu maam Ibrahima ca lañ fay jaanama ak tàngoor wam fekkoon na nam ruusum taal banam nga mardaam ba yàlla naa ko yaana aru ko ne bardaam yàqoo ba ba daan palamtu ñeen fukki fan keroog la xool do fattu yëgal ne kat Suleymaan ca lañ ko delloo jaaroom ba njanaaw yi ginne yëpp booloo ñeen fukki fan am na ko def baa dolloo saytaane moom àddina muy wëndeelu yëgal ne eesa madiru ulaahi ca la ruam gannaaw jëm aras ci lañ ko yëkkatee mu wéy ba asamaaw ñu ray yahood ba mu ruam gannaaw guddi keroog la Mohamed Moustapha njool Makka denc Xadijatu ca taaxi Makka ciw tam xarit la yàlla bind asamaaw bind ca suuf kun fa yàkkoon oo gën gaaw soral amini nee mahal amini fawxal amini Seex Bamba lañ ko miine nit ak juróom ñaar la Mustafa rasulullahi rañaane makka jëm aras billahi ñii bisub gaawul ñenn ñi ne altene Seex ban ne ku màggalat guddeem nga di fu la tane keroog la Mustafa war ca ko alburaax di xotti di lay asamaaw yi xotti baax yonen ba ne gis nañu ji keroog mu sax keroog mu ñor keroog ñu góob keroog lekk keroog mu laaj ñu naa ko ñun ñooy mujj mujaahidiina ñooy joxe suñu alal ci yoonu diina ñooy joxe suñu alal li waj ilaahi ak waaju màggal fi sabilillaahi